nañu ko bu baax a baax <laughs> régi maa ngi jéggalu ay ci ñu nuyu ko nag balaa Sa Ndiogou Mbengue di ñëw ci mbir mi xam naa dana laajaat euh, xalam gi mm-hmm. ma jigéen Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar. Ah, maa ngi lay fay ajaratu bu baax baax di la ziar yow itam di Moussa Ndiogu ak Cheikh Bara Ndiaye nuyu mboolem téléspectateurs yi ñuy suivre dem ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar euh, ajaratu di ñaanal sëñ Sidi nag mu yàgg fi lool te ànd ak weer. defal ko jàmm defal ko njabootam di la wax ci kanam tuuti ak kaddu coach. waaw ci kanam tuuti xam naa ni dañuy jëliwaat xalam gi rek ñëwaat. ñi ngi am mbégte di am kontante di del seeg yéen ci seen rubrique bu mag bi nga xamante ni bii moom la ñuy wax pajum cosaan ñu ci ànd ak Cheikh baara Ndiaye boroom def gis ñu war a waxtaanee lu jëm ci pajum cosaan waaye it war a wax lu jëm ci li nga xamante ni bii moom la ñuy wax actualité loolu yëpp ñu war koo càmbar sénégalais yi di ko bàyyi xel di ko déglu bu baax a baax Serigne Bara Ndiaye borom def gis ñi ngi lay nuyu. aasbillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi man wala falaa taxlamu nafsun maa uxfiya lahum min bi maa kaanu yamaluun maa ngi lay fay alaaji Sanjoogu di nuyu ñu ñu bokkal plateau bi di nuyu ñu ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew yëpp jiital ci nuyo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifa général de Mouride ak mboolem kilifa diine yi nekk ci Sénégal gépp di ci teg Cheikh Mouhamadul Moustapha sëriñ mu Cheikh Sidil Maxtaar Mbàkke di nuyu soxna May bintu Cheikh Sidil Maxtaar di nuyu sëriñ seex Ndiaye ak mbooleem njabootug sëriñ bi yëpp sëriñ Jiili sëriñ Abdou Samad Mbàkke mu Cheikh Sidil Maxtaar ak mbooleem njabootug sëñ bi yëpp ak sëñ Abib Diop di nuyu Moulay Hassis Guèye ak euh, maître maam Adama Guèye di ziar bu baax tamit sëriñ Xaadim Lo Gaydel waaye sëñ Sanju maa ngi nuyu tamit tey euh, sëñ Ousmane Lo Wilaya moomu sëriñ Modou loo Dagana dafa am bis bu muy defal sëriñ Modou Lo Dagana samedi le 18 bi ca Mbàkke euh, maa ngi koy koy yëgleel di ko nuyu di ñëpp di wax maa ngi ngi koy wàcc sëñ sëñ Ousmane Lo sama nijaay jooju waaw di nuyuwaaleel Pa Diop ca Gé Géejawaay waaw cité Air Afrique hmm. waaw moom it la waaw Baye Diop maa ngi koy nuyu bu baax hmm. euh, Cheikh Bara Ndiaye def gis macha allah hmm. dañuy ñëw ak ci point boo xamante ni bii Eh, point bu am solo la sénégalais yi di la ci bàyyi xel di la ci déglu mm. muy lu jëm ci wàllu amnistie mm-hmm. bi nga xamante ni bii eh, président Macky Sall wax nga ko waaye itam xalifa Sall dégg nga ko kàdd yi nga xamante ni bii moom la wax ak tamit mbirum Karim wat yow noo jàngatee eh, amnistie bi nga xamante ni bii président mel na ni bëgg na ko def waaye nit ñaa ngi ruumandaat di wax ni est-ce que nekkul ni dafa bëgg a créer waat yeneen candidat pour euh, barrer route ki nga xam ne moom lay wax Ousmane Sonko noo jàngatee loolu. waaw euh, wàllu amnistie bi moom. Mm-hmm. Euh, ci pour ñu ñuy seetaan xam naa ñu ci bari ñoo mën a yem. Mm-hmm. mooy maanaam Karim Wade ak Khalifa Sall ñu maanaam ñàkk gi ñàkk mën a bokk ci ay élection ak lii leen topp. Mm-hmm. donte tëdd nañ ko ba pare ñu effacé ko maanaam ñu. waaw jéggal leen ko nga xam ne dañ koy jéggal jéggalu ko ko ñu jéggalu génne leen ci kaso bi. waaw mais jéggalu yoon toppatu leen dara. waaw loola nag maanaam euh, Macky sàll defu ko ci gratuit. Mhm. te yaakaar naa tamit ñaar ñi mu koy defal kenn soxlawu ko ci. ah ñoom ñaar. waaw dañoo dem élection nga ne soxla waaw léegi dañuy njëkk a jël Karim. Karim waaw Karim moom. Mhm. yaakaar naa ne bu fekkonte ne soxla nañ ko avant élection 2017 2019 yi. Mhm. dina ci bokk. mais Karim Wade moom moo soxlawul. amnistie. moo ko soxlawul. li tax loolu mooy Macky Sall daf doon xeex ak Karim wàdd waaw bi ñu doon xeex Macky Sall fàtte na ne li muy xeexee Karim maanaam légalut jaarul ci yoon wu leer pour mën a xeex ak Karim. kër yi Abdou juuf moo ko fi bàyyi woon rek mu nekk loo xam ne. maanaam mënoo ko expliquer sax nit ba mu yanu maanaa ci moom. waxuma la ak nag nga mën cee nga mën koo jëfandikoo ci teg ci nit ci yoon. parce que dafa nekk loo xam ne maanaam dafa dafa dëppoowul ak àq ak yelleefu doomu aadama. maanaam moom yoon wi muy wi muy tegaate moom la gën a ñàkk moom la këré yi moo ko gën a wàcc lépp. Mhm. léegi nag te maanaam euh, Macky Sall nag bi mu ciy xeex Karim Wade Karim dafa xeex ak moom fii ci biir réew mi. Mhm. moom mu xeex bi tàng Karim génnee xeex bi bitim réew. Mhm. te boo génnee senegal rek maanaam kayitu këré yi bind ak kayitu gerte caaf ñoo yam kayitu gerte caaf. waaw parce que këré yi boo génnee fi kenn xamu ko daanaka Sénégal donc ñoo ko am. du dara waaw. léegi nag moom loolu dafa may Karim Wade mu am avantage su ñu dem CEDEAO mu gagné ko. bi ñu demee euh, première instance bu Paris. grande instance bu Paris. mu gañe ko. waaw ñu dem première instance Monaco. Karim Wade gagné état bi. ñu dem ONU. ONU daal di ne Macky sàll na attewaat Karim Wade waaye na ko sax de dédommagé xaalis parce que def ko tooñ. léegi nag makki sàll ci la gisee ne perte na. Hmm. non seulement ñemeetut a téye Karim Wade ci kaso bi. Mhm. ñemeewut a euh, maanaam mu maanaam li ma bëgg a wax mooy Macky bi mu xamee ne perte na ñemewul a toog. bañ a àtte Karim parce que ONU moo ko ko sant. ONU ko sant. Mhm. léegi nag ta sañuta wàññeekuwaat ñëwaat fii Sénégal ne day àttewaat Karim Wade. Mhm. rëy na loolu. te xaalis bi mu ci defoon. ak temps bi amu fi. Ah. maanaam boo xoolee ñoom Ousmane Sonko jeu politique bi ni mu demee di fi attewaat ku mel ne Karim Wade xaju fi te aussi boo attee Karim ba pare mhm. ba wane ne maa ko tooñoon waaw dédommagé ko léegi Karim Wade lan lay doon ci politique est-ce que doo kebeewaat mhm. keneen ko nga xam ne da lay man man maanaam doo xam Karim lan lay doon waaw calcul politique yooyu tax na Karim Macky Sall waaw bëggut a jëfendi jëfe li ko ONU sant mhm. te xam na ne su jëfandiwul li ko ONU sant li mu koy indil mooy bu ëllëgee dina wàcc waaw du nekkati président waaw dina bëgg a jaare dina bëgg a jiite dara. Mhm. ci Sénégal ci àdduna bi. Mhm. su boobaa ONU maanaam CV bi leen Macky Sall yi jox. jëf jii mu jëf Karim Wade ONU ne ko àttewaat ko mu bañ. waaw daf koy yàq. maanaam lu ko mën a topp la. maanaam da koy topp. Macky sàll xam na loolu. waaw Karim xam na ne Macky da ko doon tëj fër tëj boppam. da ko doon tëj far tëju tëj boppam. Hmm? léegi Macky Sall nag ngir mu génn. waaw ngir mu génn foofu mu dugal boppam il faut mu def grâce. Hmm. maanaam au moins defut lu ko ko ONU wax. am na lu mu def. waaw loolu moo tax mu bëgg a def grâce. loolu mais loolu arrangé wul arrangé na Karim Wade wu ko. Ah, mais bu fekkente ne bëgg ñoom ñaar maam Karim Wade ak Khalifa Sall bokk ci. ci ci ci élection yi képp la bëgg. Mhm. mais code électoral bi kay moo leen moo leen ko tere. moo leen ko tere moo leen moo code électoral bi nañ ko nañ ko modifier rek. Mhm. mu jeex. maanaam li leen teree nekk électeur. waaw nañ ko modifier mu jeex. buñ ko modifier soxlawul ñi ñiy grâce yi. parce que parce que tamit grâce bi tamit am ñu nga xam ne dañ mhm. xam nga nit. duñ na saa njoogu la ñuy gracier dafa am ay ay jëf rek yu ñu jël la gracier ko waaw ne jëf sàngam hmm. dat sàngam ba dat sàngam ku ko fi defoon bokkatul ah. ñu gra effacé nañ ko ñu effacé jëf yi waaw jëf yooyu nag bu ñu ko effacé daa hmm. bëri ñu ànd ak Macky Sall ñu ci mën a ñu ci mën a bénéficié wu loolu tamit daf cee nekk kon nañ xoolaat voilà loolu tax grâce bi moom hmm, man sax sama bopp man bëgguma ko bëggoo donte bëgg naa Karim ak Khalifa nekk candidat mais bëgguma ñu jaar ci yoonu grâce léegi nag bu dee ku mel ne Sall waaw damaa gis na li tax ñu boole ko ci maanaam mooy fekkee ko ci boole parce que moo moo Macky Sall moo Karim Wade ñoo ci daje. waaw ci nekk opposant ñu tëjandoo leen. Mm-hmm. bàyyandoo leen affaire mm-hmm. yooyu daf koy laalaale lu laal Karim Wade daf koy laal. da cay bokk bi ci des Macky Sall dafa jàpp ne. Mm-hmm. xalifa ñàkk ay kayit. waaw moo tax mu mu lëngaloo ngëm Sonko. mu yaakaar ne bu ko wutalee ay kayit rek mu dem mu demal boppam. mu boppam waaw. xam naa taxul mu taxul mu ragal xalifa lool ci élection. xamaa xamul lu tax nag. waaw mais xalifa il faut faire très attention. très attention waaw ah. parce que xalifa euh, Sall. waaw dafa nekk euh, dafa nekk nit koo xam ne. Mm-hmm. sens daf ko bari. Mm-hmm. dafa bari sens dafa bari sens. Khalifa Sall waaw. ah nu mu baree bi muy nekk PS. waaw am numéro 2 la woon. Mm-hmm. jékki-jékki ci biir parti bi. ka ko jiite woon dafa gaañu yaakaar naa mu ñëw nekk mu ñëw nekk premier. Khalifa. bi muy nekk ci euh, député. am mm-hmm. numéro 2 la woon. Mm-hmm. première ba xaw ma lu ko jotati. Ah, mu ñëw ah, nekk loolu mooy sens. non mais dafa am nit ñoo xam ne xoolal. dafa am nit ñoo xam ne. maanaam dañuy taxaw rek. Mm-hmm. gars yi dañuy xeex affaire bi war dañu for gis nga xalifa bi muy nekk xalifa bi muy nekk maire dakaar waaw be Benno Siggil Sénégal. waaw dañoo investir. Euh, Tanor Dieng moo waroon a nekk. candidat bi fii. waaw Tanor xam naa xool Pape Diop résultat yi mu def ak Karim Wade mu ci duggoon ak maanaam xam ne daal lii du baax. Mhm. mu daw dem Ngéeñeen. xalifa nekkoon ci ginnaawam ñëw ñëw jël ko ba tey numéro 2 la ko duggee. waaw ñëw jël ko far affaire bi wa for mhm. dégg nga. waaw gis nga Karim Wade. non damay jëm euh, gis nga ku mel ne Macky Sall. ku mel ne Ali Khalifa Sall. waaw ku mel ne Abdou Diouf. waaw li may wax maanaam mën ngaa wax ne seen biddiw. waaw bëggul xeex. ñoom ñoom ñoom dañuy taxaw rek affaire bi day ñëw rek day jékki-jékki maanaam bu day jékki-jékki rek sotti ñëw day wadd rek ñu for ko mm-hmm. day yomb mm-hmm. maanaam gars yi ñooy xeex affaire bi wadd nga for d'accord ñoom booy xoolee seen affaire yëpp noonu lay demee mm-hmm. Idrissa waaw Ablaye Wade Sonko daa mel ne lu ñu xeexut duñ ko am hmm? waaw boo ko seetloo Idrissa Macky sàll ba muy nekk PDS waaw xeexul ak kenn waaw te dem na ba jiital lépp ci PDS waaw bi mu génnee ci opposition bi. Mhm. xeexut ak kenn. te dem na ba jël affaire bi. waaw bi mu jëlee affaire bi. Mhm. léegi fa fas yéenee xeex. Mhm. xoolal lu mu ñàkk xeex ko ko teg. wax nga dëgg. soo ko seetloo. lu mu ñàkk dafa am ñoo xam ne na affaire bi dal rek. mbir mi ñëw. am na ñoo xam ne nag buñ nee tekk di xaar dara du ñëw xeex rek. dañuy xeex ku mel ne Idrissa boo xoolee léeg-léeg day yéeg ba ca kaw. léeg mu wàcc mooy day am ak temps bu muy xeex. égiw la am temps bu muy taxaw. parce que Idi fan yi dama reeba sonn am na koo xam ne ñu koy wax euh, sëñ laat bàyyi laat jiili. waaw bàyyi laat jiilim sëñ Fallou. waaw daanaka moo moom ma fëri jaay daanaka ñoo tax ñoo nekkoon manaam bu ñu naan Idrissa Seck Touba. waaw maanaam kooku la. mooy bàyyi laat daanaka moom moo moo fa maanaam moo ci daan def alalam. Mm-hmm. nit ñi rusee ko mu fonk ko ba ma fan yi ma ko laaj ma ne ko ana Idrissa Seck rek mu ne ma ko tuddale ci <laughs> ma ne ko damaa reer rek ba sonn. mu pare mm-hmm. bàyyi ko mu ne ma def maa faale ma bàyyi ko. ndeysaan parce que idi day ñëw waaw ba ànd ak nit ñi di xeex ba mu yàgg mu jékki-jékki demaat ne bokk ci roxam waaw waaw te yow ñi lay xeexal gënoo leen gën gënoo leenu juddu hmm. ëppoo leen xam-xam ñi ànd ak yow di xeex nga xëy saabul saaboo doyalee ci xeex bi bàyyi te doo leen ko wax xam nga yooyu hmm, dafa yàqal Idrissa hmm, <laughs> mais waaw euh, Khalifa Sall moom maanaam nitu sens la nitu sens waaw kon saa sa gën licence waaw Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah xam naa dinaa ñëw ak yow sax ci Sénégal ndam li nga xam ni am na ko nga xam ni suñu ceebu jën bi nga xam loolu nag waroon naa euh, ñëw euh, waaw ceebu jën bi parce euh, dafa jël ndam li maanaam ceebu jën waaw loolu balaa boobu sax ma félicité Macky Sall ndax Macky Sall ah, ci lekk ceeb wala non non non Cheikh Bara li def ni la non non Macky Sall nga ne da xam nga Macky Sall da def anniversaire am le ceebu jën la toog décembre le 11 décembre bi jàll. moo nekkoon anniversaire u Macky Sall. bi passé waaw. waaw anniversaire Macky Sall. maa koy ma ne la ma fële ma ñaanalaale ko yàlla. Hmm. mu fekk ndax Macky Sall am na 60 ans nag. maanaam bu doon koy liggéey. Hmm. fii ne nii dem na retraite hmm. parce que am na juróom benn fukki at léegi nag paa la. waaw waaw na bàyyi grand grand lu nag tuuti tuuti mag yooyu quoi. <laughs> maa ngi koy ñaanal. mu fekkee waat ko déwén. te yàlla may ko wér ak tal. Mm-hmm. may ko jàmm may ko njabootam ndax moom jàmmam jàmmi réew mi la mm-hmm. euh, di ko di féliciter tamit ministre de la culture ndax naa lañ ko war a féliciter ah, wala Sénégal di ko féliciter ah, waa rek Sénégal parce que dañoo gagné mm-hmm. euh, cadeau boo xamante ne maanaam seen ceebu jën léegi patrimoine la patrimoine mondial waaw mondial ka Sénégal loolu nag bañ koy lii laa ne woon danañ ko gañe parce mm. jën moom ceebu jën ak Sénégal moom dañoo yàgg. waaw yi dañoo dem ba seen palaa palaa palaa national boobu sax dañoo mujj am lu bari lu ñu ko jën ñoom. Sénégal <laughs> waaw. lan xam nga jën. Mhm. <laughs> xam nga jën moom jën fii ne amuti loxo amuti tànk. waaw gimiñ lay dunde waaw. <laughs> day ñëw rek mu ne nii rek mu dugg. ñu ne Sénégalais ngay gis ko xam ne fas yéene wut jariñoo loxo yi fas yéene wut a jariñoo tànk yi moom làmmiñ wi rek. waaw jërëjëf waay Cheikh Bara nga dëgg fii ne aw jënit mhm. fii ne jën du gestu du gestu jën wuy gestu mos nga koo gis déedéet jën du gestu fii ne Sénégalais bu ngeen làngoo bu la rombee du la gestu <laughs> ah. pare na ci yow <laughs> wax nga dëgg de ba tey fii ne jën la bàyyi xel baa fii ne jën ah. day lekk morom ja ah. waaw Sénégal yi dañuy lekk dem Sénégal day lekk morom <laughs> waaw d'accord bari na koo gis buur bi ah. toll nii ay moroomam la lekk <laughs> ah, waaw Fouta Tamp bi ñu ngi leen di nuyu ay yeggaleen sax baar ba tey it gis nga aw jën ah. fii ne jën maanaam euh, maanaam daa am lu mu nuróo lekk Sénégal ñaar hmm. benn bi mooy aw fii ne aw jën maanaam fii ne yaram wi hmm. daa bëri yàq waaw daanaka yaramu jën hmm. dara du ci sikk Mhm. mais bopp baay bopp baay gaaw a nëb. bopp ba bopp bi rek a baaxut. Mhm. <laughs> jën bopp bee tax mu gaaw a dee. waaw <laughs> bopp bee nëkk nëb. Mhm. fii ne Sénégal boo jëloon maanaam sénégalais yi. ñii <laughs> lañ def. mais bopp ba bob bi bob bi moo normalut loolu dañ ko aw jënit. waaw fii ne bu bu nekkee ci nguur. waaw. comme jën wu nekk ci biir géej da yaakaar ne moomam géej gi uh-huh. waaye bu génnee ci bu génnee ci nguur gi maanaam day gën day génn ci géej gi dee léegi sénégalais day génn ci nguur gi yaru léegi nekk keneen waaw waaw dootoo ko daa ne yokk yokk dootoo ko xamati sax uh-huh. waaw loolu it te boo xoolee itam ni ñuy jëflanteeg tubaab yi waaw daanaka xeetu jën la ba léegi mm. jën da ngay jël aw gerte bu ndaw def ko ci waaw benn kii rek sànni ko ko ne ko kaay lekk mu ñëw lekk rek nga jàpp ko waaw noonu la noonu ngay def jën jën wi ñu jàpp tey noonu lañ ko def mm. jën wi ñu jàppoon 1950 noonu lañ ko def maanaam ñoom dañ cee nax seen i maam nax ci seen i bàyyi di leen ci nax te yeewuñ <laughs> waaw tubaab yi noonu lañ <laughs> ñuy yi dañ doon def suñ maam yi noonu lañ def suñ bàyyi <laughs> noonu lañ ñuy def te ba léegi mënuñu koo naan mooy dañ ñëw dañ leen di jariñ bu ñu ñëwee matt rek ñu jàpp ñu yóbbu waaw c'est vrai waaw waaw dëgg la de comme ni ñuy onse noonu la ñuy onse c'est vrai Cheikh Bara allah. xam naa après dañu ci def plateau. waaw waaw donc ñu ñu ñu ñu ñu jóge ci jën yi Cheikh Bara ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni bii moom la ñuy wax euh, premier ministre. coow li dégg nga ko nit ñaa ngi ruumandaat. ñoom ñu mel ni ñoom Cheikh Yérim Seck sax ngay glissé. Mhm. ba mel ni ñu ngi tuumaal sax. Khalifa ak et cetera naan est-ce que lii ak la ku ci ne yaa ngi wax. noo jàngate mbirum premier ministre. fii ci sunum réew. est que tamit man par exemple dama jékki-jékki ne dikk geeg kii bi yëpp est-ce njariñ am na ci noo gisee mbirum premier ministre. waaw premier ministre de xam naa balaa ñoo ñëw ci kan moo ko nar a doon. lu ko mm. fi jëlee woon. waaw man gis naa ne ñu bari rata nañ ko parce que Macky Sall. Mm-hmm. dafa jékki-jékki falu. 2019 bi muy campagne moom xamul woon ne da koy supprimer. Mm, xamu ko woon xamu ko woon bi mu faloo. waaw ba a ci la gis ne mënta am première ministre. Ah. parce que ñaara fi nekkoon mooy dafa ñëm àndal di ciy wóoluwut kenn. Mm-hmm. ba pare dara ay premier ministre parewut pour jox ko fi kenn. Mm-hmm. parce que bu la ko joxee fii ba deux mille dix neuf mën naa am deux mille vingt quatre yaay nekk euh, euh, xamul xamul looy doon. waaw nga xam ne léegi. kenn la kenn la wóolu woon mooy bun njoon parce que yaakaaroon na ne bun njoon moom xam na ne bun njoon parce que dafa yàgg ak moom. Mm-hmm. bun njoon depuis Macky Sall nekk premier ministre wu lañ bokkoon cabinet di liggéey dañ daan wax Boun Dionne moo nekkoon cerveau Macky Sall waaw bi kenn gisul woon Macky Sall dem jëli ko parce que xam na ci dara ci Boun Dionne mhm. mooy Boun Dionne gëmul dëgg waaye gëm na xaritoo gëm dëgg waaw maanaam dëgg jaralu ko dee mhm. mais xaritam jaral na ko dee xaritam jaral na ko dee waaw mhm. loolu am na ci Boun Dionne am na ñuy wax sax xaw ma dëgg la nag xaw ma du dëgg waaw soxnaam feebar na mu jël benn reewam jox ko moom bun waaw loolu nag acte bu rëy la moom bu fekkee dëgg la ah, voilà loolu nag dalay wan ne kon moom am na principe bu fonk téye doomu aadama mhm. même bu fekkee da ko gis na dëgg jaralu ko dee nag yaakaar ci li ma ko seetloo mhm. mais xaritoo jaral na ko dee d'accord léegi nag loolu Macky Sall bun joon la jël téye ko mhm. programme woon ci moom ànd ak moom ñu dem nga xam ne ma maanaam day nekk tour premier ministre wu fi nekk waaye xam na ni amul ambition politique te xam na ne lu mu ko defloo dina ko def waaw mais bun biñ demee ba ba ci joon bun joon waaw bi ñu demee ba kat élection 2019 yi mhm. dafa génn def campagne bi mu campagner ah. dafa parce que bun joon dafa wérul dafa mhm. nekk nit koo xam ne du nitu terrain waaw du nitu terrain mhm. bi mu defee campagne ba pare daf ko xam naa ne daf ko jural coono boo xam ne en tout cas ci li ma xam mooy ay mid ay ay ay ay ay ay ay rendez médical am France dafa jege ba mënatu koo téye Macky nag au mu wut keneen. mu hmm. gis na léegi moom du fi tagaat keneen. d'accord léegi nag li may wax gars yi mooy. au mu supprimer premier ministre. waaw nga xam ne dañ koo amatut. waaw defut noonu de daa supprimer président bi. président ñëw nekk premier ministre. moom Macky waaw parce que premier ministre la ñu am. kon premier ministre. waaw. Hmm. <laughs> Macky Sénégal président la amut de Macky Sall mooy premier ministre du Sénégal. Hmm. mais président gi lañ supprimer. loolu yëngu léegi nag fi mu <laughs> amaat daal Macky dañu bëgg yéegaat léegi ñu wutaat premier ministre. Mmh. parce que réew mi boo xoolee ni muy doxee. waaw xoolal boobaak léegi bi Macky Sall toogee léegi ceeb ña ñaata yoon la fi dund gépp yokk lépp lu ñuy tabaxee. Mmh. yokk na ta amul sax ku ciy wax ci waa état bi. waaw boo xoolee barki démb ngay xool transporteurs yi. yëngu na. waaw yëngu na. Mmh. mu suufe yëngu na. njàng mu gis nga ko université. ña ngay xeex. waaw euh, barki démb. maanaam ñetti fan yi bërki démb. Lonaas am na scandale. démb maanaam LONASE. poste mhm. post tey ji ZAR. dégg naa fa. SAR waaw. waaw dégg naa fa. SAR nag mën nga ko scandale waaw dégg waaw mooy li li kii yoroon. saar euh, SAR rek ça va. Euh, balaa nga fiy làkk tubaab kii na maanaam maanaam am na scandale. Mhm. te maanaam même mhm. mburu mii di yokk ak. coowul université. ñaang sax doo gis gaa yi def ko ci. xoola barki démb benn nit moo dee ci nawetaan yi violence am ci. état bi biñ ñëwee euh, euh, nu mu tuddati conseil des ministres. waaw Macky Sall da cee wax. waaw étudiant dee. étudiant mhm. dee. Euh, mars yi am ni mu amee woon. waaw démb conseil des ministres Macky Sall waxu ci. Hmm. mooy réew mi am nañ premier ministre. waaw waaye nag amuñu président dañ ko supprimer. Mhm. léegi nag Macky Sall. waaw li koy indil yooyu yëpp jafe-jafe yooyu nag. waaw li ko koy gën a indil mooy. moom dafa am problème mu recruter. dafa am problème recruter recruter. ah waaw. parce que man ni man mënumaa d'accord. waaw bambakan. Hmm. bambakan di maanaam agressé wala boog di professeur ci ci ci wàllu. wàllu wàllu médecine. Hmm. tey jii ñu am crise de santé. Hmm. maanaam nga xam ne jafe-jafe bi Sénégal gën a am affaire corona ci lañ nekk crise de santé ci lañ nekk. moo daaneel économie def lépp. ngay sàggane bambakan mu dem. ci moment bi ñu toll loolu man d'accorduma ne nit ku am xel di xalaat wala boroom xam-xam dina ko ko xel di xalaat wala ni ngay recruter normal mhm. Bouga Sali ak fi mu toll ak sénégalais yi nga dem jëli ko waaw ñëw di ànd ak moom di campagne naan ko kenn mënu laa ñàkk kenn mënu laa ñàkk te Bouga Sali waaw toogal boppam mhm. xoolal boppam mbir yi ba ne la ba ne mhm. man wuy yàqu naa ah, waaw moo ne wuy yàqu naa de <laughs> waaw léegi ku ne wuy yàqu naa <laughs> mais nag Bouga moom xamul ne maanaam jour bi mu ne wuy yàqu naa waaw Macky ci ne la waajaa ngay doog a baax nga ne. waaw bi mu ne wuy yàqu na. waaw moom noonu lay baax maanaam Macky Sall. ñu ne wuy yàqu naa ñoo baax ci moom. a ah! léegi jëlal bëgg a wax na wuy yàqu na yàqu na waaw. mu ne baax na ñëwal jël. waaw waaw. si euh, Cheikh Tidiane Gadio lu amul wuy yàqu na. waaw jàpp ñu ko Amérique waaw. ba mu ne wuy yàqu na. waaw wuy yàqu na ah, ñëwal ñëwal. <laughs> maître El Hadj amul wuy yàqu na. waaw. <laughs> waaw. waa PDS yëpp. Mhm. ab enveloppe lañ leen indil. Mhm. waaw demal waa PDS yëpp enveloppe lañ lay indil. waaw nela la am wuyul kër yi. Hmm. nga tijji xool ñu ne la dañ lay topp ñëwal wuy suñu nga ne wëyaaqo naa mu ne la ñëwal dugg hmm. daal hmm. su ba ñoon woon a tooñ tooñ sama xarit yi nekk APR moom <laughs> wala wala bokk benn boo ko yaakaar sama yenn gars yi nga xam ne ba leen a tooñ waaw dama naan coalition wuy yàqu naa la coalition wuy yàqu naa bari na koo fa seen wuy yàqu naa ko fa andi te xam nga lu tax <laughs> xam nga lu tax wuy yàqu yàqu naa yi Macky Sall soxla leen nit bu ñu naan nit. waaw maanaam day am principe bu. waaw lii laay def. waaw lii laay bañ. maanaam mhm. lii laa bëgg lii laay bañ. Mhm. loolu mooy nit. nit day am lu muy bëgg am lu muy bañ. Mhm. saa yoo gëmee na nag yàqu nga. yow moom amatoo ak bëgg amatoo ak bañ. léegi da ngay ànd ak Macky nag maanaam mu naan la nii di la def nii. di la def nii di la def nii nga xam ne danaan la. bul wax ci troisième mandat bi. nga ne nii. génn leen wax ne damay laaj quatrième troisième mandat ñi génn da koy laaj da koy laaj noppi leen ñu newaat nii. maanaam fii ne loolu dong la soxla soxlawul nit ko am xam-xam mhm. voilà moo tax premier ministre bi yi ñu coow nii waaw bis bu koy tabbu tamit abu yàqu naa dong la fi mu muy yàqu naa <laughs> d'accord Cheikh Bara waxtu wi euh, mu ngi ñuy dab mais boo ñu daal ñëw ci Guy Marius Sagna mi nga xam ne bi affecte nañ ko fële nga xamante ni fii moom la ñuy wax ca Kédougou gars yi ne pour expérience noo jàngatee loolu xam naa gis naa biti di kii temps bi léegi nag gi mhm. affectation bi ànduma mhm. ci ci waaw parce li may bañ mooy. Mhm. ñu jël affaire wu affecté. Mhm. maanaam ah, suñu fonctionnaire yi. di leen menacer ci jël sa àq ba noppi. doo ñemee wax parce que su ma waxee dañ may affecté. Mhm. te loolu gis nañ ko ci euh, bu yàggul. déliko euh, jëlee nañ ko cees dem yóbbu ko Tamba. di lay naan ay cour bu bees la ak moo xamut. gis nañ ko ci. bërkit bu yàggul temps le Moussa Diakhaté hmm. bu Pape Diop Pape Moussa Diakhaté bi Macky Sall yi wax ak xuloog Pape Diop dem ba xam ne Moussa mi moo yor communication bi daanaka mooy moteuru parti bi hmm. pour mu mu partagé ko ak Pape Diop daf ko daf ko nekko ko dama lay dama lay dama lay euh, nga dem Ndar hmm. Moussa Diakhaté dafa mujj obligé lànk gis temps yee yaakaar naa Tosin Manga amoon na ko fi tey jii bu ñu jëlee gi Mari Sagna di ko fa yóbbu loolu dafa am day wane ne maanaam bu ndoxataal la aussi mais nag bu bu Guy Marius Sagna am na lu mën a lu lu mu kii mooy Tamba soxla nañ wala xaw ma Kédougou. Kédougou soxla nañ Guy Marius Sagna ci seen bopp yi. Hmm. parce que Kédougou ak Tamba daa mel ne mag état Sénégal depuis Senghor. Hmm. dañ ko fee bàyyi ngir buñ ko defaroon ba mu rafet léegi ku leen tooñati fuñ la yóbbu. waaw ah. daa mel ni dañ ko faa bàyyi. ngir hmm. muy tàng di ñàkk a développé ngir mu nekk kasob képp kuñ fa kuñ bëgg a kuñ bëgg a fitnaal mhm. loolu moo tax Tamba ak Kédougou mënta avancé léegi nag gii Marius Sagna war na faa dem parce que gis naa ne ñoom ba léegi dañuy wateel état bi mhm. te ko état am bët boobu ci yow yow da nga taxaw di jël sa carte wat <laughs> di ko wateel état parce que Kédougou mhm. dëkk bu kéemaane la mooy suuf si gën a barkeel waaw ci biiram te mooy suuf si gën a barke bekkoor ci biti waaw dëgg la te yaakaar naa kii bu fa demee dina fa gis ay scandale yoo xam ne génnee ko du leen arrangé te gii tamit yaakaar naa un 3 juin kii la ko fekkoon Tamba mu nekkoon jiite woon 23 juin M23 bu Tamba. kon bu fa mhm. delluwaatee loolu nekkul fitna ci moom. mais nag jaaduwul. Mhm. te loolu dafa nekk esprit boo xam ne dañ ko war a xeex. parce que gis nga senegal mhm. lii colon yee ko daan def. colon yi ñoo daan ñëw gis nga dama lay nettali loo xam ne ñu bari xamuñu ko. nabar Lamine Gueye. non lii rek laay tëjee Lamine Gueye. waaw dafa gisanteeg Blaise Diagne Blaise Diagne conseiller ko ne kon fi nga yem ci niveau ci xam-xam ko war a dolli. Euh, le 16 mai 1916 Lamine Gueye jóge Sénégal dem France jàngi. Mhm. bi mu demee jàngi yàlla dogal mu dem ba nekk avocat. ñëw jiite nekk avocat défense ci cour cour cour euh, cour d'appel fii ci dakaar waaw bi mu ko nekkee dossier yu bari Lamine Gueye da ci sonal tubaab yi. Mhm. di leen sonal lu lu di coow li bari kaas yi bari. waaw tubaab yi daan ñun benn erreur lañ def ñu ne waaw ñu ne waruñu ko woon jàngal. ñu ne léegi lan moo koy lan mooy euh, saafara si. Mhm. ñu ne képp ku amati bac Sénégal. su ñëwee France na jàng vétérinaire. vétérinaire waaw. maanaam piqûrum xar nga xam ne non seulement yow doo am xam-xam xar wala nga waaye boo ñëwee sax boo ñibbisee boo jàngee ba ñibbisee yow doo toog ci wil bi hmm. da ngay dem fuuta wala nga dem kéedugu di pikir nekk ca xar yi di pikir ñoom ñuy doxal li ñuy doxal xam nga loolu boo ko xoolee moom li ñuy def gii benn la maanaam isolé la hmm. ci wàllu xam-xam boo xoolee génération Biraga Diop hmm. Gaspard Alika génération boobu yëpp maanaam li tàmbalee 1921 waaw ba daanaka 1945 ñu ñi fa jàng ñëpp mm-hmm. vétérinaire lañ jàng mais noom Senghor a ci rëcc mm-hmm. te Senghor ku ñu wax euh, Prat mi ko doon jàngal waaw moo bind leetar jox ko Senghor bi muy dem wax tubaab yi ne leen kii dafa am talent te mention très bien la am bu ngeen ko jàngalee vétérinaire ma bàyyi mm-hmm. ñu daal di jël Senghor jàngal ko lettre moderne waaw ah, d'accord bi euh, Lamine Gueye demee ba nekk maire Dakar 1945. ci la ko kaas nag jël 122 élèves 122 yoo xam ne dañoo am bac mu yóbbu leen France kaas ne ku ne la nga bëgg a jàng ngay jàng. Hmm. kenn du fi jàngal kenn witrinaire. loolu moo ko jeexal. d'accord loolu moo tax. Hmm. maanaam ñun dañ ñu daan isolé. Hmm. jëlee la fi yóbbu la pour bu doo xam dara ci dossier yi. waaw bu dee tubaab yi biñ demee ba rey xew wi comme nañu defoon Cheikh Amadou Bamba génnee ko. dañ lay mujj maanaam tëj la ci xam-xam ba doo xam dara. bàyyi laak ay làmb bàyyi laak ay fecc bàyyi laak ay pari foot bàyyi laak ay. YouTube ak <laughs> Facebook nga nekk foofu doo xam tus. d'accord doo jàngi. léegi nag ñoom ñu jaw daw laxasu ca mbir ya di ko doxal. jërëjëf jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye defe naa ni waxtu wi dab nañu seex baara mais am na loo xam ne moom nga bëggoon a waxtaanee tey ci pajum cosaan luy dimbali wàllu jigéen ñi. Ah. loolu Cheikh baara nga tënk. lépp rek jigéen lu gàtt la moo tax une deux minutes. lu gàtt la jigéen joo xamante ne. kanamam mm-hmm. dafay am xet. Mm-hmm. waaw waxuñu kanam gii nag. waaw waaw xam ne waaw gars yi xam ne. waaw kanamu jigéen bi muy sawee. Mm-hmm. waaw dafa xam ne dafay am xet léegi nag euh, mm-hmm. jigéen mm-hmm. Sadio am na ñoo xam ne nii xamuñu dara. waaw waaw am na ñoo xam ne ñu ngi lay seetaan de. mais boo nee kanam ñoom. xamuñu kanam ah. dañuy defe ne kanam gii ngay wax. Ah, aywa fi muy sawee. Mm-hmm. léegi bu ko defee. Mm. dafa am ñoo xam ne infection moo leen di jàpp. day am xet. am na ñoo xam ne dafa nekk tawat ci ñoom. dafa am sëlër. indi xet. am na ñoo xam ne di sëy. ak préservatif lu bari. préservatif moo ko gën lu ci ëpp nag moo koy indi moom. Mhm. waaw maanaam préservatif. nga koy préservatif préservatif. voilà nga koy nga koy nga koy nga koy nga koy sëyee. Mhm. dafay indi. bu baree. tegaloo day indi sa kanam di xeeñ. waaw léegi lan moo koy dindi. waaw daf da ngay wut doomu laaj. Mhm. laaj bi nag da nga koy bënn nga jël bënn ak pusa ñaw ko maanaam takk ko buñ gu dëgër nag parce que parce que damay bañ mu jàll <laughs> boo ko defee da nga koy booleeg buum gu gudd nga ko sa kanam def ko ci kanam bàyyi ko ci kanam gi mu yendu fa wala boog lu mat quatre heures de temps du doon jànq waaw ah, jànq kay lu muy lu loolu koy xam ne ah, muy leer rek balaa ah. kay leneen di jàpp bu ko defee fa bàyyi ko fa lu yàgg lu mat trois de temps quatre de temps wala mu yendu buum gi rëccee nag quatre heures koy da koy da koy yeew laaj bi nag yow buum gi yeewaat feneen <laughs> boo ko boo ko bëggee xëcc d'accord <laughs> baara buub nga <laughs> da ngay yeew laaj bi ba du dem waaw yeewaat buum gi ba nga xam ne buum gi du dem waaw bu ko ci noppee rek ñor di buum gi mu génn waaw waaw loolu daal ku ko def affaire xet yooyu daanaka benn yoon sax boo ko defee da ngay gis na génn na xet gi yëpp macha allah su dee kanam guy ku euh, tijjeeku tamit boo ko dee faral di def day tëj sa kanam da koy ub da koy ub mm-hmm. waaw bii di ñëw sax mën naa joxe leneen loo xam day ub kanam bu ko defee nag affaire rab yi waaw Cheikh Bara bi jeex na. waaw damay joxe programme bi rek mu jeex. programme ci la ñuy def faj rab. Mm-hmm. ci benn fan tamit lañ koy faj maanaam benn rendez-vous lay doon boo ñëwee ci même jour. dañ la mm-hmm. koy fajal en même temps dinañ la joxaale loo xam ne day ubbi wërsëg. Mm-hmm. bay moom daal danañ la sangat ca xàmbu yeeg sangat yu baax. waaw danañ ba maanaam bu dee rab bi tamit lum la mën a def. moo xam ay feebar la la teg. moo xam ñàkk jëkkër. moo xam euh, tëj sa wërsëg ba mënoo am dara. moo xam loo am mu tasaare ko. moo xam mënoo am euh, liggéey. moo xam mu yóbbu sam xel ba ngay fàtte wala mu lay merloo wala mu teelaa am doom ak lépp lu mu ci mm. mën a doon boo ñëwee ci même jour dinañ ko faj incha allah mais balaa ngaa ñëw da ngay ne damaa bëgg a faju rab ñu jox la jour bi ñu koy def nga ñëw nga jël rendez-vous doo ko mën a ñëw d'accord bu dee yeneen bis yi maanaam mm, bu dee comme di suba mm-hmm. euh, ñu ngi nekk Tëngéej ñu ngi nekk Tëngéej cité Sëñ Mansour ci terminus 48 bi waaw foofu lañ nekk mm-hmm. boo fa ñëwee moom itam siti hémorroïde hmm. estomac kattan asthme diabète tension ak sangatu sunguf pour bayre ak ubbeekoog yooyu yëpp ku ko hmm. soxla rek boo ñëwee lu dul rab daal hmm. boo ñëwee suba boo ñëwee danañ la ko fajal d'accord bu dee nag samedi dimanche ah. mardi ak mercredi ak jeudi ñi ngi asalem 2 ginnaaw école ma Sall. jërëjëf boo ñëwee ba école Madieye Sall koo laaj kër sëñ Baara Ndiaye. ñu wan la ko asalaamaaleykum. voilà numéro téléphone bi di 77 610 81 81 77 610 81 81 nga jokkoo ak Cheikh Baara Ndiaye borom def gis sa aajo faju ñu daal di lay faj incha allah. ajaratu béti lenga yaa ngoog Cheikh Baara def gis góorukat yi bàyyi sañ sédd di ci ñu ñoom Baye Mbaye ak maam Cheikh maa ngi leen di ziar bu baax a baax ñu daal di ànd ak partenaires yi dellu si waat